tey li waral euh, suñu point de presse bi mooy dafa am lu ñu jóge muy élection législative yàlla dogal ñu nekkoon ci terrain bi doon def campagne ba élection yi jàll waaye nag euh, lépp loo xamante ne jogante la dina am koo xam ne moom mooy gañe am ku ñàkk yàlla dogal nag fii ci département bu Mbacké ñun dañ koo ñàkk mais def nañ li ñu waroon def lépp góorgóorlu nañ ci terrain bi yaakaar naa ñi nga xam ne ñooy waa kër Antoine Diome yi gis nañu leen. kenn gënu leen cee doon jàmbaar bu loolu jàllee nag euh, ñuy remercier ministre de l'intérieur. bi nga xam ne def na ko ci élection yi ba ñu am élection yu transparence ànd ak démocratie ba pare nemmeekuñ ci benn incident loolu bu amee njàmbaarte ministre de la euh, ministre de l'intérieur la. muy monsieur Félix Antoine Abdoulaye Diome loolu nag dañ ko ci sant yaakaar naa sénégalais yépp ko ci war a sant parce que avant loolu lu ne doon nañ ko dégg am na sax ñu demoon bay wax naan ah, yabal na fi ay nit dañ ko bëgg yàq ak yooyu yaakaar mais ni mu ko sécuriser yaakaar naa ne amul benn élection bu mës a jaar Sénégal boo xam ne bii ni mu amee transparence euh, beneen amee woon na ko amul yaakaar naa yéen journalistes yi gis ngeen ko nemmeeku leen fi benn incident boo xamante ne nii lu jëm ci wàllu élection yi la loolu nag bu amee dañ koy sante ki nga xam ne mooy ministre de l'intérieur Félix Antoine Diome di wax ne ñun tamit aussi di gën a feddali suñu kóllëre ak moom parce que lu tax ñu jàpp ko mooy àndub ngor la ñu ànd àndub nawle la ñu ànd parce que dafa nekk nit koo xamante ne nii yàlla dafa dogal muy bokk ci dëkk bi di taalibe Serigne Cheikh saaliw mu xam muy koo xam ne ci biir kër Serigne Saliou la yaroo moo tax ñun ñii ñëpp ñu ànd ak moom di ko jàppale jàppale goo xamante ne nii bu mucc ayib ànd boo xam ne ci àndub nawle la àndub nawlonte la ndax nit la koo xamante ne nii nit ku gore la nit ku baax la moo tax dañuy gën a renouveler suñu confiance ci moom wax na ñi ngi ànd ak moom tey ak suba ak ëllëg ak gannaaw suba. bu loolu jàllee ñu remercier sénégalais yi ci choisir bi nga xam ne choisir choisir nañ Benno Bokk Yaakaar ba joxaat ko majorité en l'Assemblée national loolu dañ ciy gërëm sénégalais yëpp ndax yaakaar naa 30 départements gagné nañ ko loolu sénégalais yi lañ koy sante di wax ne ñi ñoom itam renouveler nañ seen confiance ci ki nga xam ne moom mooy président de la république monsieur Macky Sall. yàlla dogal ñu dem élection ñu sanctionné président Macky Sall fii ci dëkk bi may wax waa APR ak mboolem koo xam ne yaa ngi ci coalition bi bu ñu tekki seen jàjj nañu dellu ci askan bi wax ak ñoom xaj na li nga xam ne président def na ko ci dëkk bi xamuñu ko te ñu baree bari jotuñ ci. kon maa ngi ñaan nañ ñoom ñëpp delluwaat ci askan bi waxtaan ak ñoom parce que ñàkk xam la rek parce que dama gëm ni électoral tubaa nii ñu ko sànnee nii euh, lu jara saytuwaat la ci dëkk bi ndax bu ñu demee ba jël ab opposant di ko jox masorité ci biir Touba te mënta tabax xat ci biir Touba loolu information bi moo jàllut ci population bi jàllut ci askan bi te loolu dafa laaj liggéey loo xam ne dañ ci war a taxaw ñun ñëpp président di ko félicité ak ñi mu àndal ñun ñëpp suñu borom dogal na tey mu am majorité assemblée war a continuer liggéeyam ci biir Sénégal kon ñu ngi koy jëfal tey wax ministre yi nga xam ne ñoom la àndal tamit euh, làqatu bi ni làqatu ci gouvernement bi vraiment loolu maa ngi ñaan président Macky Sall mu jël ci ay responsabilités parce que nit mënuñu la jox ay ndombay tànk jox la responsabilité ñoom ñëpp kenn ku nekk nangu ñoo génn fis ci dara loolu jaaduwut président na dooleel sones bi dooleel ndaw ñi ndax politique ndaw moo koy def parce que gis nañu élection bi passé mille voix ñun ñu indi 30 mille voix kon électoral bi wax dëgg yàlla am na coppeeku bu baax a baax a baax a baax. monsieur le ministre Antoine Félix Diome ñëw na Touba recevoir collective délégué de quartier yi nga xam ne si dañu nekk Touba yenn quartier yi nga xam ne si dañu amoon jafe-jafe ndox ak éclairance publique lu jëm si wàllu làmp mu jàppale leen ba ñoom yéen a ko gisal seen bopp ak population Touba. ba koñ yooyu ñu nekkoon amoon ay jafe-jafe saafara nañ fa lu baree bari resevoir fi tamit yeneen koñ yoo xam ne fii ci Touba la nekkoon manque ndox quartier bu si mel ne na ci la bokk jàppale leen ba fii may waxe ak yow nii boo fa demee ndox am nan ko comme ni ko Moussa waxee bari na ay responsable politique APR yoo xam ne si resevoir na leen ba ci comité électoral bi kon kooku dañ koy wax gàcce ngalaama sant ko gërëm ko li ko président de la république di liggéeyloo mu ngi ci guddi moo ngi ci bëccëg ñuy wax ne ministre yépp ni Antoine Félix Diome di def ñoom nanuy def loolu yaakaar naa bu ñu ko doon def tey jii nii président de la république heure bu ñu xëyee ndamam day gën a yokk ci Sénégal kon moom lépp loo xam ne si waroon na ko Touba def na ko ngir jàppale président de la république pour mu am ci ndam ñun nag dañuy feddali sunu kóllëre ak moom ak sunu diggante ak moom di wax ne tey leen gën a engagé wu. ànd ak moom nekk si ginnaawam ndax parti bii di APR bu ñu demee ba nekk fi moom moo fi indi tey lan gën a gëm ne ministre de l' intérieur kuy liggéeyal président de la république la ndax élection yu transparence moo am ci réew mi. Touba gi nga xam ne si amul ay école ay bâche lañ fi def gis nga ren organisation bi ni mu amee solo baas yoo xam ne si bu doon taw sax benn bulletin du tooy jël ay làmp installé ko fa muy tàkk xam nga ne élection yu mel nii yu jaaree yoon nii ma su fi am opposition bi nag dañ leen di wax. bu nu joxee résultat yi ba coalition Benno Bokk Yaakaar am majorité am nañ ko sax ba pare bu nu fi taxaw naan dañu sàcc élection yi ndax loolu mooy li nga xam ne si mooy dëgg président Macky Sall moo am majorité assemblée nationale. Touba nag comme ni ko sama gars yi waxee danañ leen sant dinañ leen gërëm ndax ku ci mel na ñun ñett ñi ñëpp toog de kenn ku si nekk say nit bu fekkoon na ñoo bokk benn bureau de vote bu élection jotee nga yëkkat sa bu 18h jotee nga yëkkat sa loxo xam ne bureau de vote boobu da nga koy nañ ñu. waaye nag bari na si ñoo xam ne si dañu réere mbir xàmmewuñ élection yi te dafa jot ñu xam ko xamuñu élection locale xamuñu élection législative xamuñu élection présidentielle ñu bari pour ñoom président Macky Sall mooy xëccoo te ku ne xam na ne élection yii nii profil yi coalition benn Bokk Yaakaar tegoon pour ñu dem ensemble moo gën fopp ñi fi opposition bi teg kon tey ji bu nu mënee wan ginnaaw ñu dem di fal ñeneen ñoo xam ne amul lenn lu leen mën a jariñ jot na tey ji population Touba toogaat xoolaat seen bopp ndax président Macky Sall 2012 ba tey day gañe réew mi te gañul fii loolu dong moo amaat ci élection yi dina am majorité te Touba du ci bokk kon tey jii nii ñiy diaboliser président Macky Sall ci dëkk bi tax nit ñu baree bari mere Macky Sall bañ ko comme ni ko Moussa waxee ba boo leen laajee ne leen lan ngeen tax lan moo tax voté lu leen Macky Sall mënuñu la ko wax jot nañu xippi seen i bët xool te xam ne président Macky Sall li mu def ci Touba benn président mosu ko fee def ñun nag. tey lañu gën a ànd ak moom tey lañ ko gën a jàppale tey lañu gën a nekk ci ginnaaw ministre de l'intérieur ñi nga xam ne nag santas mooy seen mbir joxuñu leen sax importance bu bari duñ si nekk sax di wax ak ñoom lu bari nekk si dëkk bi di jéem a tolériser nit ñi di xoqatal nit ñi nan xam ne ñun bokkuñu si ñooñu ñun si opposition bi lan nekkoon politique buñ si namee ragal dañuy dee toog nañ fi fukki at yàlla di ko opposé Macky kon ñun kenn mënuñoo xoqatal li ñuy def nag di santas benn mbir bu jëllut ñu taxaw fi di def ay sorti di dal ci kaw ministre de l'intérieur lan leen waxoon démb loolu lan leen di wax tey ku ci yëkkatee ci kàddu wax ko ministre de l'intérieur toogal di xaar sunu tontu ku def lu la neex am lante ak yoon sa morom porte plainte loolu lan moo si yoonu ministre de l'intérieur ba ñuy taxaw fi naan Antoine Diome moo leen jàppalu te ñoom ñoo ñëpp dem intérieur ñu daje fa ak ñoom ministre bi recevoir leen may leen paas ñu taxaw di def ay proposition yoo xam ne si ak ay santas lan bëggoon joxuñu leen ko ñu taxaw fii tey naan yor naan ay millions dañ ñoo jox xaalis jox ñuy oto dig ñuy terrain jëluñu ko ñu jàpp ñu dafa jot nag population Touba xëpp seen i bët xool xam ne dëkk bi dafa am ñu fi nekk di dox ci kaw xelu nit ñi li ñuy def bu guddee ak li ñuy def bëccëg yi bokkuñu ñun nag ay ndaw la ñu nekk fi nekk ci ginnaaw ministre de l'intérieur kenn mënuñoo tiital kenn mënu